day jàll ci wax bu ñu fasee fan la fase may dal muy ponk bi ñu tudde almahallu mooy buumu sëy goo xam ne góor gi moom la ko ba noppi wala mu ne su ma ko moomee li ñu wax nag ak pase ci buumu sëy goo xam ne mooma goo ko moom al imaamu Shaafi'i nangu ko waaye nag mbirum Maalik moom ak Abu Xanifa ñu wax ne buumu sëy goo xam ne moomu ko it du ca ajee pase ma bu ajj ko rek pase ma dal mu ne aj bi pase mën naa am ci këppati ni ki jigéen joo xam ne takku ko mu ne ko su ma la takkee rek fase nga du soxnaam waaye mu ne ko bis bu ma la takkee rek dal ngay fase kon bis bu ko takkee rek mu daal di fase fa saasa loolu mooy xëppati yi ñàkk xëppati nag ñaari xaaj la benn muy ci yéene wala muy ci na mbir ma demee bu dee ci yéene moom la ñu misaale mu wax jigéen ni ko nangam day boo ko defee ni ki marché sàngam day boo ci demee fase nga te jigéen bi doonagul soxnaam ci yéene nag mooy bis bu ma la takkee day boo demee ca marché boobee fase nga loolu mooy yéene ndax kooku nekkul soxnaam mu jekki-jekki ne ko boo demee ca marché sàngam mbaa boo defee nangam fase nga dama yéene nag mooy gannaaw bu ma la takkee ba noppi nag boo defee loolee kon fase nga bu ko takkee rek mu dem ca marché boobee mbaa mu def la mu waxoon rek fase ma daal di dal ndax ndax yéene gëm yéene woon aj gëcce ba mu ko takkagul bi ci des mooy na mbir ma demee lañ seet ba ne ko yow mii aj nga fase mel ne bu dem ci doomi ndeyam nga xam ne benn lañu bu fa bëggee soxna wari su koo daq bu dem nag fekk bokk yi doon ñu topp topp seen bakkan wax ko wax ji ñaaw ñaaw ju ko naqaree naqaree bu daal di ne may naa ko baatam moom day laba dong mu duñ ko kenn waaye dañ ko wax naqari ko mu ne may naa ko baatam dañuy jàpp bu amul teewlu ci xolam ci moo ko takkit bis bu ko takkee rek mu daal di fase ndax may naa ko baatam ji wax dañ koy jàppe aj pase ak aj lañ koy jàppe te bu ko takkee rek mu daal di ajji ko bu ajjee pase ma ci boobu si goo xam ne moomu ko bu takk rek fasaa pase ma daal di dal war a fa itam genn wàllu can ndax lu mu wax kon ba mu waxee jigéen ji ne ko bu ma la takkee rek fase nga bu koy takk rek fasaa pase ma dal na te war koo jox genn wàllu can moom de labat itam ñu wax ko ko merloo mu daal di ne may naa ko baatam xaat di wax ne loolu dañ ko jàppee aj nga xam ne buy takk rek ñu ne ajju na su boobaa soxna sa fase na te war naa joxe fa saa sa genn wàllu kenn moom ne ko nag marché sàngam doo ca dem boo ca demee fase nga te jubli ci bu ma la takkee bu noppi nga dem ko fase nga kooku moom bu ko takkee ba jotee moom mu door a dem ca marché boobee kon can gu mat la koy jox ndax daa fekk wéet ga wéet ak moom mu war koo jox can can ko waxante woon la koy jox mbaa bokk can ko ñu war a jox ñu demee ne moom muy canu kem daal bu ko takkoon nag laata mu jotee ak moom bu daal dem ca marché boobee mu waxoon mbaa mu def la ko ne boo ko defee fase nga kon fasel ba noppi te war koo jox genn wàllu can mu ne bu jëfandikoo jumtukaay boo xam ne ci làmmiñ lii baa muy dem ak dikk lañ ca xam ne ci kullama saa yoo xam ne ak bépp boo xam ne kon yoon bu mu ko takkee rek mu daal di fase fa saasa mu war ko genn wàllu can bu dee na koo xam ne fekk lu mu nekk ci buumu sëy moom sëy boobu mu tàyyi ko takk mukk mukk mukk ndax ba addunay tukki saa yu takkee rek bu may bay daanu ñu ne ko fase na te daal di joxe genn wàllu can su fekkoon ne na moom daa fekk mu takk ko soxna mu ne ko nag saa yu la takkee fase nga mel ni daa jublu ne ko suñ tàggu woon ba takkaat la it fase nga kooku moo xaw tane ndax moom jàpp ni buumu sëy la ndekam soxna nag buñ tàggoo woon mu takk ko bu may bay daanu rek ñu ne ko fase na joxeel kenn wàllu can ba ñetti yoon muy ñetti buum ñetti buum yi matee nga xam ne ba mu sëy nga jeex na bu bàyyee ba jëkkër jaar fa bu ko takkaatee itam ndax mu fase loolu moo wut ki wax lii fekk mu soxnaam ak fekk mu soxnaam waxoon jigéen ne ko yoon bu ma la takki fase nga ba ci yoonu ñetteel ba naka mu takk ñu ne ko fase na te war ngaa bàyyi ba jëkkër jaar fi mu daal di koy takkaat nag yoonu ñeenteel te jëkkër jaaru fa dañu ne boobu moom bu jotiwut ak moom dara dara du ko ci war ndax may gañ ko ko may diis ko jàppee ak may ndax ñetti buum daa jàll ñu waroon a bàyyi ba jëkkër moom nag mu daal di ak noonu yoonu ñeenteel te jàpp ne fësuwul sax bañ naa pase am na moo tax foofu moom kenn ko joxeloo genn wàllu ne woon saa yu ko takkee fase na ñu ne ko bu may gay daal fase na da nga war a genn wàllu can moom nag mu daal dem joteeg moom ndegam jot naa moom kon can gu mat la koy jox can gu mat bu fekkee am na ko mu joxe googa bu fekkee waxu genn mu joxe canu kenn li ci indi faqat dong ji nag mooy ñu wax ne joxe gu mat ak genn wàllu ndax ne comme nee na koon ay ma la takkee rek fase nga naka mu ko takk rek dal nay fase daal di war a warlu genn wàllu ba mu jàllee nag yépp joteeg moom kon gu mat kon daa war a joxe can ak genn wàllu can waaye moom daa ànd ci ñu wax ne dangeen ko suñu joteeg moom rek day joxe can gu mat waaye bu joxe waale genn wàllu can te bu jigéen bi yëgoon ne fase nañu ko teewul mën kooku joteeg moom dañu jàpp ne kon daa njaaloo jëmmi jote ga du ca am can genn wàllu can rek lañ koy jox mu ne nag bu xatalee boppam lool ñu indil ko ci yaatal jigéen ju ma takk rek amul kenn kenn ku ma takk fase na kon ku mën di takk itam du ko taxa fase su fekkoon na it ñu waxe waxul jigéen ñëpp ñëpp waaye daa desal lu tuuti loo xam ne mënu ca am soxna ni ki mu ne jigéen du ma takk rek te takk yu ma ko dëkk sàngam fase na ñu xool dëkk boobee mu tuuti tuuti boo xam ne mënu fa am soxna waa dañ ko yemale ku ne woon rek du ma takk fase na kon ku takk itam du ko tax a fase ba tey bu fekkee ne dañoo marché ci foofa daanaka ñu may soxna faaw ñu waxaale na ay soo jëy toll bu ne ku ma takk di tudd ay soo jëy rek fase na ma ne kon ka may takk moom duñu wax mu jënd alali sëy ñu maye kon la ëpp moom la ci boppam maanaam moom la aaye boppam ñu far ko ko yaatalal su boobaa takk rek ñu wax alali sëy ja waaye la mu wax ne képp ku ma takk ñu wax alali sëy ja rek fase na kenn du ko ko teg ndax daa xatalal boppam lool ñu far ko yaatalal safaan ba nag mooy bu ne woon ku ma takk ñu bañ wax alali sëy ja may ma rek noonu fase na kon ku mu takk noonee fase na ndegam loola bariwul foofa bu ko waxee itam xatalul boppam ba te bu ne woon képp ku ma takk bu bokkul ci dëkk sàngam rek waaye dëkk boobee dafa rëy mën na faa takk na nga ko bëggee ba li mu ne ku ma takkiwul ndakaaru rek fase na kon ku mu takkiwul ndakaaru rek mu wala bu ne ku ma takkiwul tuuba rek fase na takk te du tuuba rek dëkk ba dafa yaatu amu ci genn xat bu ne woon li feet dat sàngam ci kanam ku ma fi takk rek fase na ni seet taat ba mu wax xëy na mu àgg waaye lu bari daaw ñu ci àgg mel ne moom am na ñeen fukki at daal di ne juróom benn fukki at yi ci kanam ku ma fi takk rek fase na te boo boolee ñun ñu am ak juróom benn fukk doon téeméer kon ku mu takk itam du tax mu fase waaye nag kon ne ñaar fukki at la am daal di ne li fekk ñaar fukki at ku mu takk rek fase na kon ku mu fi takk rek mu fase ndax dañuy jàpp ne ñaar fukk moom dem ba ñeen fukk lu mën a mën a am la te du tax mu weesu njariñal soxna jamono yooyu jaam dafa am góor am te dañu waxoon ni góor bu dee dafa mu jekki-jekki takk jaam lu may ci sart yi nga waxoon nag bu xësee xatal boppam moom góor gi gor ne su ma takk rek fase na dañ koy daal di yaat may ko ci yooyu jamono mu takk jaam bu nee dëkk sàngam soo ji mu tudd mbaa nga ne ndakaaru mbaa nga ne tuuba mu ne bu ma takk tuuba rek fase na waa ku ma takkee ndakaaru rek fase na mu ne kon bu takkee jigéen joo xam ne waa tuuba la wala baayam waa ndakaaru la kooko fase buñ dee askan baay ba lañ ñuy seet su baay bokkit boobee mu ne woon kum ci takk fase na jigéen jooju mu takk dal nay fase ba tey sax bu fekkoon ba ne woon dëkk sàngam fa takk fase na bu amee koo xam ne ci saanu dafaa joox ab doxandéem la fa waaye dafaa yàgg yàgg ba mu ne waa amee seen jikko mel ni ñoom mënu si koo xam yi ñëw day takk ko mu fase ba mu ci saanu fa waaye dem na ba yem ak ñoom képp képp bu koy takk rek day mel ne ku ci saanoo foofa daal nay fase bu ne woon ku ma takk te saa bi dugg ci rek fase na yàlla nattoo ko fi saa sa mu daal di gudd mënta bi sëtam bëtam mu ne koy ku mu takk du ko taxa fase say bu mu takk rek bu jëkkee wax ne jeeg bu ma takk fase na jàll ne xiig maanaam gone gu ma takk it fase na la mujj a tudd muy xiig yi ca la xatal ga amee ndax ba mu ne jeeg bu ma takk rek fase na mënoon naa takk kudul jeeg maanaam waaye nag ba mu ca tegee ne gone gu ma takk it fase na la mujj a tudd nga xam ne ca la xatal ga amee moom bu ca takkee bu fase waaye la njëkk a tudd muy jeegee moom bu cay takk rek mu fase kan xaq si mel ne safaan ba daa njëkkoon a tudd jeeg bu ma takk rek fase na mujjee gone gu ma takk rek fase na safaan ba mooy mu ne woon gone gu ma takk fase na bon caateeg nag jeeg bu ma takk it fase na kon li mujj tudd muy jeeg la xatal nga amee kon bu takkee jeeg du fase waaye bu takkee gone mu dal di fase kon boo takk foofu dañuy wax ne ñaari wàll lañu jeeg ak ku dul jeeg bu tuddee lee amatu xatal ndax mën naa takk ca la ca des waaye nag bu tuddee lee wëlbatiku tudd la ca des dañuy seet même mu jëkk tudd nga xam ne ca la xatal nga amee mu ne ko loola moom sañ nga caa takk ba mu jëkk tudd nag nga xam ne booba xatal amagu doon bu cee mën a takk bu cee takk rek mu daal di fase dañ ne woon bu nee li seet dat sàngam ku ma fi takk fase na tey seet ne mën naa am ca dat booba te du tax takk wees ci moom ku fi takk rek mu fase ne borom ñaar fukki at ne li seet ñaar fukki ci kanam ku ma fi takk fase na dañ ne woon ku fi takk mu fase kooku nag la ne su ragalee ne moom wax na ko waaye bu fi tëkkut faaw dana njaaloo du mën a téye boppam kon dañ koy bàyyi mu takk ndax njaaloo dafa diis bu dee jamono yooyu nag te mën a taarawu maanaam wut daam bu jigéen te bu amee ab taara rek du njaaloo kon du sañ a takk bu dee jamono ji nga xam ne moom jaam amatut mbaa bu doon jamono jooje te mënut am ab taara itam ndax bi mu wax ne du ci takk bu ci takkee fas waaye bu tëkkul rek njaaloo dañ ko wax ne ko takkal rek ndax njaaloo dafa diis bu ne ku ma mujj a takk rek fase na te jàpp ne yàllaa xam ak dundam fu mu yem ku mu takk ku ne mën naa doon këm mu ca takk kon ku mu takk itam du ko taxa fase waaye allaxam yi moom day wax ne su waxee loolu këm da ko takk moom du ko ca wax dara waaye nag bu mu weesoo ko ku mu takkati dañ ko wax ne ko doo xañ jotee ak moom dara dañuy bàyyi ba nga takkaat keneen ndax moom mii kat mën naa am moom ngay mu ca takk bu demee nag ba takkaat keneen ñu door ko bàyyi mu jotee ka jiitu woon kooku am na sax ñu wax lu gën a diis loolu ñoom dañu ne kam njëkk a takk ci boppam ci bi mu nee ku mag mujj a takk rek fase na dañ ko wax ne ko mën naa am kii nga takk nii mën naa am mooy doon ka nga mujj a takk kon nag day dox sa diggante moom ne la boo joteeg moom dara ba ba ngay takk ab ñaareel su takkee ab ñaareel nag ñu door ko bàyyi mu mën a jotee ku njëkk ka ba noppi ne ko ñaareel bi nag moom doo mën a jotee moom li fekk takk koo ñetteel ndax mën naa am moom nga mujj a takk su dee ba am ñetteel ñu door ko bàyyi mu mën a dem ci ku ñaareel ka mën a joteeg moom ne ko nag ku ñetteel kii moom doo joteeg moom ba ba ngay am ab ñeenteel ndax mën naa am moom ngay mujj a takk moom ñetteel bii bu demee nag ba takk am ñeenteel bu may gay daan rek ñeenteel ba fase nga xam ne ni moo ci war a mujj ndax buñ ko weesu ñeent kon ñett yu njëkk ya yëpp yaatu na ci waaye ñeenteel bi moom daal nay fase ci saasa waaye daal li mu la wax moom say boo jàpp ko rek mooy bu ne koo mujj a takk rek fase na ko njëkk a takk sax du ko taxa fase ndax ndegam yàlla xam ak dund te kookee mën naa nekk ko mujj a takk ñu ën ci yaatal rek bañ ko caa wax dara moo tax mu teg ci walaa yu xafu te defu ko taxawal wan la ne la kenn du ko wax ne ko dañ lay téye ba nga takkaat keneen ndax xamuñu ba xam kii moo ci mu jëm déet jooju wax moo gën a dëgër boo àndoon nag ci ñu wax ne dañ koy taxawal bu mu takkaat léeg-léeg foofu am jafe-jafe ndax ka mu takk duñ ko ne bala ngaa mën a jotee moom da ngaa takkaat keneen ah waaw soxna sa nag bu mënta muñ nag ne man dama mën a bàyyi rek mu teg ma fii du jotee man dara lu ñu def dañu yóbbu waa ji ci kanam yoon ne ko dal di gaaw li seen ñeenti weer muy ajam ila fexeel ba li seen ñeenti weer nga takk fi ndax mën a dem ci kee ñu taxawal su ñeenti weer yi matee te mënta takk rek bu neexee soxna soosee ñu fase ko ndegam mënta muñati mu ne bu ajee am paseem ci bu soxnaam defee nangam wala moom ci boppam bu defee nangam wala bu nangam xewee waxtu muy waxee di aj duñ ko seet waxtu wa loola amee muy waxtu ajji ko wa la ñuy seet nga xam ne waxtu wa loolee xew bu fekkoon ne fukkutoon kooko di soxnaam kenn du ko ci wax dara mel ne bu ne woon soxnaam boo duggee ci kër diw fase nga mu daal di summi ko moom maanaam soxna sa fay ko alal gannaaw ba nag soxna su dugg ci kër googee kenn du ko wax ne ko am passé dal na ci sa kaw ba boo ko takkaatoo nit ñu wàññiwaale passé moomu la mu ko ne woon boo ko defee ci laa aj sam passé gannaaw ba mu tàggug moom ba dëkkatu ci boobu sëyam jigéen ja def loolee du tax dara war ko ci moom jëkkër ji mu ne waaye nag bu fekkoon ne gannaaw ba mu tàggoog moom da koo takkaat takk bu yees te fekk na ba muy tàggoog moom mëtutoon ñetti passé kon bu koy takkaat rek bu jigéen ja defee loolee passé ma daal di dal mel ne bu ne woon soxnaam boo duggee ci kër gee fase nga soxna sa fay ko alal ñu tàggoo bu ko takkaatee mu doonaa soxnaam rek bu duggee ci kër googee passé mu ajoon daal di àjjiku mooy passé ma daal nay dal nga xam ne kon bu ko fase woon ñetti fase gannaaw ba nag mu door koo takkaat mu def loolee itam du tax dara war ko ci moom jëkkër ja ndax buumu sëy moom ñett lañ koy jàppee saa yu ñetti fase amee rek dagg na buumu sëy ga gannaaw ñetti fase yi moom dañu jàpp ne ci buumu sëy gu yees lañ nekk lu mu ajoon ci buum bu njëkk ga te mu dagg ci ñetti yooyee moom kenn du ko ca topp dara waaye nag li fekk buumu sëy gi di jeex ah li fekk fase wu ko ñett yu mag la mu ko ne woon doo ko defee rek fase naa la bu tàggoog moom takkaat ko mu def loolee it fase na daal di dal dañoo wax rek jigéen ji def loola waaye moom bu ko ajoon ci jëfi boppam mbaa jëfi keneen it atte bi benn la mu ne bu takkoon jigéen ne ko ku ma takk ci sa kaw rek gannaaw bi ma la takkee daal ku ma takkaat fase na mu ne kon su tàggoo woon ak moom te fase yi matul ñett kon na jàpp ne bu takkaatee beneen soxna itam bu delloo di wax ca ku jëkk ka buñ ko koy may fa saasa yi saasa rek ñaareel ba mu takkoon dal nay fase moom ba saasa bu yore woon soxna su tudd moomi njaay daal di ko ne ku ma takk ci sa kaw rek fase na su fasee moomi njaay moomu benn fase mbaa ñaar nga xam ne ba mu séega jeexut mu daal di takkiwaat moomi jóob indi bu dal di takkaat moomi njaay rek moomi jóob daal di fase fa saasa ba tey moomi njaay mi mu waxoon ne ko ku ma takk ci sa kaw gannaaw bu ma la takkee daal ku ma takk rek fase na su tàggoo nag moom dem takk ñaar indi wëlbati ko nag takkaat moomi njaay moomu ñaar ñooyu ñëpp daal di fase bi ñu ko nee moomi njaay mi nga njëkk a takk ne ko ku ma takkaat ci sa kaw rek fase na bi nga tàggoog moom dem takki moomi jóob ñu ne booy waxaat ci moomi njaay ba ñu fasal la ko rek bu fas ngay daanu moomi jóob moomu dal nay fase dal nga koy ñàkk mu ne boo bëggoon a wax ne kat moomi njaay tëkkuma kenn ci kawam ndax dama tàggoog moom ba noppi door a takk moomi jóob kon moomi njaay bu dellusee ab ñaareel lay doon kon nag laa waxoon dara dañu ca mu ne ko itam jooju wax bu nu ko jàpp li fekk daal nga xam ne moomi njaay moomee bu ngeen tàggoo du woon ci ñetti pase kon koo mën takk ci gannaawam muy benn muy ñaar muy ñett boo delloo ci moom njaay buñ la koy may rek bu may gay daanu rek soxna nga yoroon yépp ñàkk nga leen bu fekkee nag moomi njaay moomu ba ngay tàggoog moom bu mu séega jeexoon na ndax ñetti pase nga ko fase woon kon boo takkaatee moomu jóob mbaa keneen du ca wàññi dara loolu ñu ne di nangu lay yu mu lay am nañu ne lu tax mooy moomi njaay moom ko séqal lam jàppoon mooy lu yàgg-yàgg du ko boolee kenn kenn yore kon nag mu dem ci kanam àttekat ak mu dem di laaj borom xam-xam ñooyemoo lu moomi njaay jàpp rek la ñuy jàpp lu yàgg-yàgg daal kum ko bëgg a booleel rek kooka fase am ñu ne nag bu doon ci kanam àttekat kenn du nangu layam woowu waaye nag bu doon laaj borom xam-xam rek moom mu nangu lay yu mu wax mu daal di sañ a topp la borom xam-xam boobee wax jaam moom bul fàtte ne bi muy gor ñetti fase mooy tax buumu sëy ga dagg jaam moom ñaar rek moo daa jeexal buumu sëyam jaam bu góor nag ba mu tolloo ci njaam nga bu ne woon soxnaam nangam boo ko defee fase nga ñett ba soxna say def loolee nag fekk mu génn ci njaam gi moom jëkkër jooju nekk ci ngor kon dañ ne woon lam ajoon duñ seet waxtuwam ko ajee waxtum aji ko lañ ñuy seet moom booba jaam la woon waaye léegi góor la te moom yëmutoon ci fa jaam war a yam muy aj rek ñaari fase xanaa ñetti fase la ajoon ba loolee aj ko nag fakk mu gore day jàpp ne kon ñetti fase moo koy war bi góor gi tolloo ci njaam bu ne woon soxnaam soo defee nangam mbaa su ma defee nangam fase naa la ñaari fase ba loolee di am nag fakk moom mu gore waaye xam nga ñaar rek la ajoon day jàpp ne kon soxna soosee fase na ñaari fase bu mu séy ko def na benn jamono yi jaam amee bu jëkkër ji fase soxnaam benn pase nga xam ne kon ndegam jaam la la jaam daa am muy ñaari pase def na genn wàll gu muy benn gannaaw ba bu goree dañuy jàpp ne moo ko fase woon ñaar ak ñooyam jigéen joojee benn pase moo ci des bu mu séega jeex ndax dañuy jàpp ne ba muy fase benn du fekk mu doon jaam la ko yoon mayoon defoon na genn wàll ga ndax ndegam léegi góor la day mel rek as góor su fase woon benn pase genn wàll yoon mot li genn wàll ga muy ñaar nga xam ne nga xam ne buumu sëy googee benn ci des dafa dugg nag ci ponk ñeenteel bi te mooy baat bi ñu wax ba ñu ne fase na mbaa baat bu muy bind mbaa ba muy liyaar ba ñu ne fase na moom nga wax nañ la ne la barab bu ne nañ aadoo waxee rek bu dee kuy àttee ci la leen di àttee bu dee kuy ubbee ci la leen di ubbee li jaxase xel yi rek mooy di seet baat ya nga jàngoon ca téere ya di ko dëppaleeg barab ba nga nekk nañ baaxoo waxee ci mbirum passé fekk na ñoom ci seen bopp sax téere yi bañ koy taalif dem nañoo dem ba waxeetuñ baat yooyee nga xam ne ñoom sax buñ dee ubbee duñu xoolati baat yooyu kon jàppal ne ak jafe-jafe amul foofu barab ba nga nekk daal nañ fa baaxoo waxee ci buñ dee fase rek bu dee kuy àtte ci lay àtte bu dee kuy ubbee ci lay ubbee mel ne bu dee fii ci noonu fase ak wacc ak may baat ak yolomal moo si gën a siiw yooyu nag ci la ñuy ubbeekoon ci la ñuy àttee baati fase yi dañ koy def ñaari xaaj ci lañ koy jàngee ci téere bii baat boo xam ne ca dëgg-dëgg fase la ci xëppati bu wërëwër ak baat boo xam ne dàkkental la ci fase baat boo xam ne bu xëppati dàkkental la ñaari xaaj la nga xam mën naa nekk dàkkental gu fés gu ñëpp xam ci fase mën naa nekk dàkkental goo xam ne daa làqu taxu koo leere noona daa njëkk wax nag baat bi nga xam ne bu dee ci arab moom moo wër ci xëppati ci fase mu ne mooy baat boo xam ne am na baati daroo ak laam ak xaaf ba noppi nag bokk ci baat yi mu la wax ndax mën naa am baat daroo ak laam ak xaaf te miinuñu ko woon ci waxe ko ci fase kon kenn du ko boole ci baat yi ñuy wax ne xëppati la ci fase baat yi mu la wax nag mooy ab talaaku ci taara ko ni ki ab talaaku pase ma yalzamu nii dara ma war wala xale yëpp talaaq wala anti ab talaaq anti ab talaaq yow yaay pase ma mel ne su lépp fase na rek mën naa mu jubadi ci yow anti ab talaaq waaye buñ ko waxee itam fase la ak lépp lu ko nuru ak ñu andi baatub talaaq bañ koo taara ni ki talaaq rek ni ki xale ki talaaq wala anti talaaq wala xale ya talaaq bu andee sax baat boobu te andiwul anti ji mbaa anti ji mujj koy du ca soppi dara ci àtte bi teewu ko doon rek pase ci wax ji wér a wér ba tey talaqtu fase naa noonu nañ ko ca muy xëppati ci fase ak tatallaqti moom dana ànd ak min nii bu delloo ci jigéen ji bu dee nag tatallaqtu min ki topp ca mbaa sax anti tatallaqti boo ca tegut min nii itam mbaa tatallaqtu tegoo ca min ki itam day fay la baat boobu luñ fa natay moog lu ñu fa saxal mu wér ñooyamoo ak mutallaqatun ko ñu fase nga ni ki anti mutallaqatun wala mutalliq muy même góor gi ana mutalliq baat yooyu mooy ñu xamoon ci xëppati ci fase lu mel ni nag matluqatun wala muntaliqatun ak intaliqi am nañu tàbbaroo laam xaaf waaye dañ leen a minutoon ca kuy fase di ko wax ñoom bokkuñu ci baati fas yi ñuy wax ne xappati la bokkuñu sax ci tàkkantali fas yu fés yi ndax daañu leen jëfandikoo lu bare bari ci lu dul fase kon nañ leen di boole ci dàkkantali fase yu làq yi nga xamee ne buñ ca jubloo fase mu doon ko buñ ko ci jubluwul rek du ko doon baat bi ñu ne da wér cëng di xappati ci fase moom moom lañ wax ne bu ko kooku waxee doon kafitam du tee pase ma dal na moom daal laamañam rëcc ko mu tudd ko te jublu ko woon a wax rek moo koy tee doon pase buñ ne baat sàngam ku ko wax rek fase nga ndax daa bokk ci baat yi ñuy fasee bu wér ci xappati bu waxee rek baat ba te tegu ca benn lim benn képp lañ koy mën a jàppee dañ koy laaj nag bu dee koo xam ne xàmmee na limu fase yi benn ñaar ñett ba xam lu mu jublu ci fase gi ndax daa jublu benn wala ñaar wala ñett bu ne benn ñu ne ko waaw bu ne ñaar ñu ne ko ñaar bu ne ñett ñu ne ko kon nag faaw jëkkër jaaraat fii bu dee ci ñu waa maali ñoom di àttee ci misaal bu dee ci wolof bu ne soxnaam fase naa la mbaa wacc naa la mbaa yolamal naa la mbaa may naa la sa baat loolu bu dee ci nun fii moom fase la dañ koy laaj nag ba xam bu dee ku xam googu wàll ndax benn nga jublu wala ñaar wala ñett bu dee nag benn laa jublu am na ñu ne faaw mu war a waat boole ci ne benn rek laa jublu woon am na ñu ne jërul muy waat buñ ko taxawalee ci kanam àttekat kay la ñu wutee ci dana waatam du waat waaye bu fekkee day laaj rek moom kilifa gu xam mbirum lislaam mu di ko tontu moom maas nañ ci ne du jar muy waat. i'taddi daa mën a firi iddawul maanaam jàppal idda waaye mën naa firi i'taddi na nga limaale wala waaye maanaam xuddi limal mel ne i'taddi limal rek lu ci nekk mën na ko firi bu ne nag bu ne soxnaam i'taddi te wax ne fas la ci jublu dañ koy laaj ba xam benn nga jublu bu ne benn ñu ne benn bu ne ñaar ñu ne ko ñaar bu ne ñett ñu ne ko ñett bu ne woon soxnaam i'taddi ñu ne ko fase nga mu ne déedéet fasewu ma kon buñ gisee tegtal bu wane ne xëy na jubluwutoon a fase ñu nangu la mu wax ndax ndegam baat mën naa firi i'taddi li ma leel nangam mën naa firi i'taddi wàññil rek kon bu fekkee lu ñu naa mees na ku limaale ci lii am déet dafaa nekk mbaa lu ñu wàññi nekk fa mu ne damaa julli na ko limaa leel nangam mbaa limal nangam ñu ne ko wax nga dëgg kon i'taddi ji soxnaam sam koy wax bu dee koo xam ne wéet naa moom yomul rek ci may kon day doon dàkkintalu fase bu fës waaye bu fekkoon ne day kuñ ko may rek yem ci jotewut ak moom dara kooku xam nga ne moom bu ko fase itam du iddawu kon bu ko waxoon i'taddi dañ koy boole ci alkinaayatu alxafiya muy baat yi nga xam ne ku ko wax te jublu ca fase mu doon ko bu ko ca jubluwut it du ko doon buñ masaa di wëtal ak jur buñ jàppee ca buum nga di ko jiital muy dem ba génn ba sori dañuy sànni buum nga xëy na mu dal ca ndodd ma ñu wan ko ne ko mën ngaa dem nag fu la neex jëmal kon xablu ki xalaa xaarili ki moo ko fu la neex jëmal ñoo nuroo ci wolof mel na ne day wax baat yi nga xam ne dàkkental lañ ci fase te dañ caa fës lool ràññu ko woon ci yooyu jamono nga xam ne ku ko wax soxnaam ñu jàppee ko ñetti fase moo xam wéet naa ak moom moo xam wéetut ak moom mu njëkk ci baatu battatun bi firi ak dog ñu jàpp ne bu mu sëy moom ñett rek moo koy dokk xablu ki ala xaarili ki buñ ko mësaa wax fu la neex jëmal dañ ko daan jàppee ñetti fase bu soxna si ne jëkkëram jaay ma ba mu sëy gi yow jëkkër yow la yàlla moomale bu mu sëy waaye damaa bëgg nga jaay ma ko mu ne ko jox ma nàngam ma jaay la ko bu ko soxna su joxee loolu day mel ne fase na ko ñetti fase ndax jënd na buumu séyam bu ne ko anti taaliqun talqatan waahidatan bainatan bu dee koo xam ne may nañ ko ko wam jota wéet ak moom ñett lañ koy jàppee bu dee nag koo xam ne ak may ba nga dox seen diggante ñu ne ko fase nga benn rek lu may nga yéene ci bopp benn bu ne ñaar laa jublu itam ba ñett li war a jàpp nag li ba mu wax waaye ndegam jot sa wéet ak moom moom benn lañ koy jàppee te laaj ko nag yéeneem ndegam ko mën a xàmmee benn ak ñaar ñett la mboolem xeeti tàkkintali fas yi nga xam ne dañoo làqu fisuñu mel ne udd xol yi duggal seen kër wala idhab yi demal ci mboolem xeet tàkkintali yu làqu yooyu daal bu waxee baat yooyu te yéene ci xolam benn fase boo xam ne amut fay li maanaam da caa yéene ci xolam ci baat yooyu waahidatan baina kon bu dee soxna soosee jot naa wéet ak moom ñu jàpp ne loolu mu wax ñetti fase la bu dee nag koo xam ne dañ ko ko may rek waaye jotewut ak moom dara ñu ne ko benn moom am na bu yéene loofu benn nag ba dañuy jàpp loolee mu yéene foofu nag mat naa taxaw tuuti seetlu ko ndax dane boo ne woon sa soxna jógal foofu baa génnul sama kër baa demal ñibbi lu mel noonu bu ci yéenee tàggoog moom ni ki mu yéene ca benn wase boo xam ne du amuk fay li kon bu dee soxna soo xam ne jot naa wéet ak moom du rek ak may moo leen boole ñett lañ koy jàppee bu dee nag may kese la moom ñu jàppee ko benn bu ci yéene lu benn nag ñu door a jàpp yéene ji waaye daal benn lañ koy jàppee dale di tàmbalee baatub kalmaynati ba ci aw baa inatin aw ana lu mu ci wax soxnaam rek tamit koo xam ne jot naa wéet ak moom du ak may rek moo dox seen diggante ñetti façon lañ koy jàppee bu ne ko yaa ngi mel ne ci man médd di médd araame kon daanu na ne ko noonu nga araame ci man mbaa mu ne ko yaa ngi mel ne ci man deret mbaa mu ne ko yaa ngi mel ne ci man yàpp mbaam xuux mbaa mu ne ko may naa la sa buum mbaa mu ne ko delloo naa la seen waa kër mbaa mu ne ko moomatuma sa buumuk sëy mbaa mu ne ko araam nga ci man mbaa doonatoo dara ci man mbaa deñ naa ci yow nga deñ ci man yu ne noonu daal bu dee soxna soo xam ne ku wéetal la doonul rek ci may ñetti fase lañ koy jàppee bu dee soxna soo xam ne ak may rek dox ci diggante mu wax ko baat yi te yéenewu ci benn mbaa ñaar xanaa ñett la ci yéene su boobaa it mu daal doon ñett kam jot a joteel moom dañ koy jàpp ñett rek bu ñu seet boo xam ne lu mu ci yéene waaye nag bu dee koo xam ne may kese dox seen diggante dañ koy laaj yéeneem bu yéenewut lu yées ñett rek mu doon ñett yoon waa ngoog demal yoon waa ngoog demal mu ne baat boobu ku ko wax soxnaam moo xam ku wéetal la moo xam kuñ ko may dong la ñu ko wax ne ko fase nga ñetti passé du may nag mu wax ne man kat benn laa yéene woon mbaa ñaar daañu nangu mu ne benn laa yéene woon mbaa ñaar waaye bu fekkee ne amutoon jenn yéene kon ñett lañ koy jàppee mu ne soxna soo xam ne jot naa wéet ak moom bu rek ak may moo leen boole bu ne ko sama kanam araam na ci sa kanam mbaa sa kanam araam na ci sa kanam mbaa boo fi deewee fu jëm sa jëmm araam na ci man mbaa sa jëmm araam na ci yow mbaa bu sama kanam jàkkaarloo teeg sa kanam mel ne buñ tegantee te ay bët mukk mbaa mu ne ko ak sëy amatul suñ diggante mbaa mu ne ko moomatuma dara ci yow amatuma dara ci yow mbaa mu ne ko amatuma wenn yoon ci yow loolu bu ko waxee koo xam ne jot naa wéet ak moom ñett lañ koy jàppe ñetti fase lu may nag mu wax ko ko ngir yedd ko bu ko waxee jubbu ci yedd rek moom de su ko jàppe pase mel ne soxnaam di def ay mbir yoo xam ne daal jàpp na ne moom jaaduwul ci digganteem ak moom soxna wër te def noonu digganteem ak jëkkëram mu wax ko nag ngir yedd ko rek bu dee nag koo xam ne jotute wéet ak moom ak may rek moo leen boole ñu laaj ko ba xam lu mu yéene lu mu wax rek ñu jàpp loola bu ne benn la yéene muy benn bu ne ñaar lu mu wax rek ñu jàpp loola bu waxoon ne yaa xaraam yow aji araam ji bu ca judduwut fase rek duñ jàppee yaa xaraam ji pase ba tey bu ne woon alxalaalu xaraam bi mu ne alxalaalu xaraam mu boole ci xalayya ak mu ñàkk ko cee boole ñooyemoo ak bu ne woon sax xalayya xaraam taw jamihuma amliku xaraam lii lu ci wax ne la yàlla def mu lu dagan xaraam na ci man mbaa lépp loo xam ne maa ko moom rek xaraam na ci man mu ne bu ko waxee te jubluwu caa boole soxnaam nga xam daal génne soxnaam teg fee loolu lépp du ko tax a doon fase waaye nag boo waxee baat yi te jublu caa boole soxnaam nag moom bu dee soxna soo xam ne jot naa wéet ak moom ñu jàppe loolu ñetti fase bu dee koo xam ne jot a wéet ak moom nag ñu laaj ko ba xam am na jenn yéeneem jët bu yéenee lu yées ñett ni ki benn mbaa ñaar ñu ne ko kon noonu la bu dee soxnaam tàggoon na maag yow moo xam kun jot a wéetal la moo xam kuñ ko may dong la day jàpp ne benn fase moom am na bu ci yéenee lu ko ëpp it ñu jàpp la mu yéenee baatub saa idatul aji boy bu ko waxee soxnaam mbaa mu ne soxnaam sama diggante yow li ñu wax ci dagan ba araam amu ci bu ne wax naa ko ay jubluwuma ci fase ñu ne ko waatal ne jubluwoo ci fase su waatee ñu nangu la mu wax bu ragalee waat nag ñu waxee ci yaxub téere bi mooy ñu ne ko kon fase am na waaye nag waxal ba xam benn nga jublu mbaa wépp benn foofu nag dana xaw a lënt ndax ndax ku ma saa wax ne jubluwuma fase buñ la waatloo nga ragal a waat duñ la may nga naa kon benn laa jubluwoon mbaa nàngam te ñu waxe fii moom mooy nuwiya fii xadadihi boo xoolee sara bi mu ne lii ñëw na ci mu dawoon waaye ci dëgg-dëgg du waxi Malik ibnu Shihab lañ ko askane mu ne kon ci dëgg-dëgg boo delloo ci ngir Malik dëgg-dëgg moom ci cosaan day wax ne lu mel nii kam ko wax bu dee soxnaam soo xam ne jot naa wéet ak moom ñetti fas lañ koy jàppee bu dee bu dee koo xam ne wéetul ak moom nag bu ca yéenewul lu mat ñett du ko doon waaye nag bu ko ci yéene itam mu doon ko mboolem baat yi nga xam ne dañoo fës ci dàkkantal passé bu mu ci wax te wax ne man jubluwuma ci passé ñu gis ne kat am na firnde joo joone ne mën na caa bañ jublu passé ñu ne ko wax nga dëgg jubluwoo ci passé lu mel ne baatu talaaq ak lu ci aju nga xam ne xappati na ci passé sax bu ko waxoon ne jubluwuma ci passé ñu gis fa firnde ju wóor ju wane ne moom mii kat jubluwul passé yi ñu ne ko wax nga dëgg ne bu dee ci langu arab anti taaliq mën nga ko wax jigéen te fekk da nga caa jublu yow kat yaa ngi matu mbaa nga di ko laaj ba xam da ngay matoo mel ni mu wax soxnaam anti taaliq jublu ci yow day xamoo ko waaye ci dëgg-dëgg ci mat nga nekk mbaa mu di ko laaj ne ko ah yow da ngay matoo kon anti taaliq joojee tudd na baat bu daa xëpp ci passé waaye nag waxtoom ko waxee wane na ne jubluwu ca passé kon ci gàttal baat yi ñu ne dañuy dàkkantal yu fés ci fase ak sax baatu xappati ba lu mu ci wax rek ne jublu na ci kat passé te bu ñu xoolee gis firnde joone ne wax na dëgg ñu ne ko wax nga dëgg daa jàll ci li ñuy wax baat yi nga xam ne dàkkantal lañ ci fase waaye taxul ñu leer ca manes na ko wax jublu ci passé manes na ko wax jublu ca leneen mel ne ay ca demal mbaa demal ca say bokk mbaa mu ne man yoruma soxna te fekk mu yore soxna mbaa ñu ne ko am nga soxna mu ne déedéet aw nga soxna te fekk mu yore soxna mbaa mu ne soxnaam gore nga mbaa ku ñu goreel nga bu mu sëy dafa am bu mu njaam am mën na koo wax nag anti xorratun mbaa moo taqatun te jublu ci bu mu sëy gi mel bu mu njaam yooyu naa la ci léegi gore nga baat yi nga xam ne jamtalu na pase jamtalu na ak ñàkk fase bu ko góor gi waxee dañ koy laaj ba xam loo ci jublu ndax da ngaa jubloo pase am déet bu nee damaa jubloo pase ñu laaj ko ba xam ñaata nga jublu benn mbaa ñaar mbaa ñett bu ne itam jubluwu maa pase ñu ne ko wax nga dëgg jubluwu laa pase baat yooyu moom am na yaatu buñ ko laajee lu wax rek bu nee fasewu ma ñu ne ko fasewoo bu nee damaa fase ñu ne ko ñaata benn mbaa ñaar mbaa ñett te luñ ci wax rek ñu fekk ko ca kuy wax baat yu lënt yooyu nga xam ne day jamtalulee jamtalulee daañu ko yor ba bu ëllëgee bu dee waxati wax lu wóor loo xam ne duñ jekki di ca jaaxlee ka laaj mu ne baat bu mu wax rek soxnaam te jublu ca passé mu daal di koy doon bu ne ko woon may ma ndox daa jógal bunt bi nga taxaw te jublu ca passé it mu doon ko bu génne woon sax kàddu koo xam ne amul lu muy firi mel rek mu walis ko te jublu ca passé mbaa mu nàññ ni aw nag di nàññe mbaa meem ni am xar di meeme te jublu ca passé it mu doon ko kon mu wax baat bu am lu muy tekki ak mu génne kàddu koo xam ne tekkiwul dara bu ca jubloo passé rek mu daal di koy doon baat yi mel noonu dañ ko daan boole ci alkinaayatu alxafiya baati dàkkantal yu fase yu làqu yi doonte sax ca dëgg-dëgg nekkul dàkkantal ci ni nga xamee dàkkantal ci njàngalem jàngalekat yi bu jubloon wax soxnaam ne ko fase naa la far duum wax beneen baat ni ki jox ma bool bee dañu jàpp ne fasewut ndax dañ ne woon tudd baatu pase ba mooy tax pase am te moom bu fekkee moom lu jublu woon it tudd ko su bëggoon wax soxnaam ne ko fase naa la ñett ba mu ne fase naa la nag laata muy jàll ci baatub ñett ba mel ni kuréetu far yam ci fase naa la joojee ko it du ko tax a doon ñett bu waxoon moom anti taaliq naka jëkk mertoonu jàll te namoon ñett buñ ko laajee mu ne ñett laa jublu ñu ne ko ñett la waaye ndegam daa jubloon wax anti taaliqum talaasan fase naa la ñett ba mu ne fase naa la nag laata muy jàll ca baatub ñett ba mu rëccu far yam ci fase naa la ji di su ko jàppee ñett benn daal xam ne ni moom am na waaye safaan bu mooy su ko naroon wax fase naa la benn fa tudd limub ñett kon moom ñett a koy war dañu ne woon wax baatu passé mooy tax passé am mu ne nag junj junj boo xam ne bu ñu xam la ne passé la ci jublu dañ koy jàppee passé doonte sax kooka mën naa wax bu junjee junj bu ñu xamee ne passé la jublu rek ñu jàpp ne passé na ak bu yebalee ndaw ne ko neel saa soxna passé naa ko moom bu kàddoom daanoo rek passé ma am na moo xam kookee dem na jottali ko moo xam demu jottali waaye bu nee ko neel sama soxna passé naa ko rek passé mi daal nay am suy bind passé su bindee baatu passé ba rek te fekk te fekk mu dogu ci passé passé mu daanay am mu génn mbind ma joxe ak mu ñàkk ko génn joxe ñoo ci yemoo ndeke ba muy bind baatu passé ba fekk na mu dogu ci rek passé am na bu fekkee booy bind nag baatu passé ba dogu ci woon mel ni mu ne daa ciy diitoog sama baay mbaa sama xarit bu génnee mbind ma joxe rek te dogu ca passé ga génn ba mu ko génnee te dogu ci rek passé daal nay am nde ba mu koy bind ne soo noppee diisoo ceeg sama xarit génnewu ko passé amagut waaye bu nee dama koy bind rek diisoo ceeg diw laata mu cee diisoo nag far dogu ca daal di joxe mbind ma passé dal nay am ba tey bu fekkee ba mu koy bind dëggu ca woon ba mu koy génn it bëgguwutoon ci passé waaye ci dawlu bi yàlla soxna sa jot na ca mbind ma ndegam mbind ma àgg na ci ko mu jëm rek doonte boobu dëgguwu ci woon it passé am na nga takk foofu ne su ko bindoon génne ko waaye lépp mi ngi deng dengi ba xam dana faseem du passé bu àggul ca ka mu jëm rek muy soxna sa mbaa kilifaam wax ja gën a wóor mooy passé amut mën naa téyewaat mbind moomee wax passé ma ci xelam dong nag moom taxut a passé li nga mën a wax ci làmmiñ ne fase naa saa soxna si mën nga ko wax itam ci sam xel waaye nag mu ne boo ko xoon ci sam xel itam du tax mu doon passé wax ga mbaa bind ga rek mbaa junj ga mooy tax passé am waaye rabat baati passé yi ci xelam rek ni ngi koy defee ci làmmiñ du tax passé am ci wax ji gën a wóor ba tey jëf rek du wecc ci wax lu may nag dañoo aadawoo noo xam ne ku ko def ñu ne passé na mel ne foofa dañoo aadawoo kuy passé da ngay jël ak buum dagg ko bu ñu xësee xam ne jàpp ak buum dagg ko passé la rek bu ko jëkkër ci defee ñu jàpp ne kon passé na waaye bu dul loolu moom jëfi kese nga xam ne wax ànd ca du doon passé ku wax soxnaam ne ko yow sama ndey mbaa mu ne soxnaam yow sama mbokk mu jigéen mbaa mu ne soxnaam yow sama yaay ju ndaw maanaam fekk koo xam ne daal araam na ko araamuk dappetu mu wooyee ko soxnaam yonent bi daa déggoon ku ko def mu ñaawlu lam def yedd ko ne ko sa mbokk mu jigéen naa moo tax nag ku wax lu mel noonu ñu ne la wax nga wax yi ku gàtt xel ku décédé décédé ndax bu ëllëgee mu bañ koo defati ndax nag songam song def ko lu araam la mbaa lu ñu sib la am na yaari wax wa innama nusiba alqaa'ilu lissafahi li nahyi alwaaridi anhu sallallahu alayhi wa sallam fi xawlihi liman qaala li zawjatihi yaa uxti mu ne ko a uxtuka hiya fa kariha zalika wa ankara wa fi karahatihi wa xurmatihi qawlaan soxnaam soo xam ne jot naa weet ak moom su ko waxee fase naa la ay yoon moo xam ne ca andi araf ataf niki anti taaliqun wa taaliqun wa taaliqun wala sax booliwu ci araf ataf mel ne anti taaliq taaliq taaliq kon dañuy jàpp ne na mu baamoo rek baat ba noonu la li mu pasee toll su baamoo baat ba ñaari yoon muy ñaari pase bu ko baamoo ñetti yoon muy ñetti fase kooku nag mooy soxnaam soo xam ne jot naa wéet ak moom yomul ci ñu may ko rek ba tey bu doon soxna soo xam ne dañ ko ko may rek waaye itam loolu mu waxee baat yi baamu ko da koo suflee ci làmmiñam li ñuy wax suflee waxul bee ba mu yàgg mu doon waxaat ba ca des ba tey dañuy jàpp rek ne lim ba toll ñu ne ko noonu la fase yi toll mel ni soxnaam soo xam ne jotu la wéet ak moom mu ne ko anti taaliqun wa taaliqun wa taaliq nga xam ne noonu la ko waxee ci làmmiñam mu tegaloo dañ koy jàppe ñett kooku ñu ko may nag te jotiwut ak moom dara moom bu ko doon fase baamu baatu fase ba waaye soufflé wu ko maanaam daa wax baat bee teg ca diir door a wax baat ba ca topp kon benn fase lañ koy jàppee ndax kuñ ko may jotiwut ak moom dara moom benn fase rek jeexal na sëy ba ndaxte mënu koo fay lii day mel ne kon bu ne ko fase nga gannaaw ba mu door a wax ne ko fase nga fase nga tegaat ci ñaar yi ndax ñaar yu mujj yooyee ñu jàpp ca benn ndax day mel ne ba mu waxee rek fase nga ci njëkk ja noppi door caa tegaat ñaar ñooñu bu njëkk ba rek daggoon na bu mu sëy ga waaye nag lu mel ne sëqat mbaa tisli moom duñ ko jàppee lu may ak sësale ndax sëqat ak tisli moom daa amul solo yu mel noonu moo suufle lañ yemale su baamoo nag baatu pase ba wax ko waxaat ko waaye andiwu ci araf ataf ni ki dana rek anti taaliq taaliq taaliq ne itam damaa jubloo fetli rek di jubluwuma ab lim damaa bëgg a dëgëral rek pase gi ma pase li wax ci naxu at taakiidu allafziyu ñu ne ko wax nga dëgg waaye nag boo andi woon araf ataf moom duñ ko mën a jàppe ak fetli ndax ataf moom mooy jël nangam yeew ci nangam rawante ne waaw kon mu defe ko waaw mbaa faa mbaa summa ni ki anti taaliqun wa taaliqun wa taaliq wala anti taaliqun fa taaliq fa taaliq wala anti taaliqun tumma taaliq tumma taaliq moom bu nee fedd rek laa jublu duñu ko nangu dañuy jàpp ne ataf moom boole yu bokkut lay tegtale bu nee ko fase naa la kaaru passé dañ koy mottali muy benn dong bu nee ko fase naa la ñaari ceer yi menn passé dañ koy mottali rek ba tey muy benn passé mooy rek loo def ñetti xaaj ñaar ña mooy ñaari ceer menn passé ku ko defoon yaari genn wàll dóor naa la yaari genn wàll yëpp yaari genn wàll yi menn rek la mën a doon wala bu ko waxee menn passé képp lañ ko mën a jàppee bu ne ko menn passé dóor naa la ab ceeram akub kaaram dégam passé yi moom menn rek la boo génnee ab ceeram akub kaaram du ko tax a mat su boobaa nag yoon mottali ko benn rek dane ko menn passé ku génne woon genn wàll ga teg fee génne kaar ba itam teg fee boole naa yooyu yaar dóor la ko mel ne am tasi boo ko defoon ñeenti xaaj genn wàll ga mooy ñaari xaaj ña benn ba mooy kaar ba mel na kon daal mel na parce que bi nga ko defoon ñeenti xaaj dóor naa la ñetti xaaj ya mu des benn yoon da koy mottali rek mu doon mel na parce que ba tey jàppal nag ne baatu parce que bu ko tuddee ñaari yoon bu ne mu delloo ci ab xaaj dañuy jàpp ne da nga tudd na baat bi ñaari yoon rek ñaar la ñu bokkut bu ne ko dóor naa la ceeru pase dóor la it kaaru pase kon tudd na pase gi ñaari yoon yoon bee mu delloo ca ceer yoon bee mu delloo ca ab kaar dañuy jàpp ne ñaari pase lay doon ndax dañuy jàpp ne pase mee dóor na ko ceer ba ñu mottali ko muy benn pase ma ca desit dóor na ko kaar ba ñu mottali ko muy beneen muy ñaar fii itam daa tudd talqa baatu pase bi ñaari yoon aw rubuxi talqatin wa nisfi talqatin dañuy jàpp ne talqa bi mu ko tuddee ñaari yoon benn bokk ci ak mawam ma kon pase bi mu tuddee ab kaaram dañ koy mottali ñetti kaar yi ci des pase bu mu wax genn wàllam itam ñu dolli ca genn wàllam bu daal doon yaari pase dañuy jàpp ne baat boo ko tuddee muy nëkkira dellu ko tuddaat baatu ñaareel bi bokk te bu njëkk ba li ki ci alquran fa inna maal xusru yusran inna maal xusru yusran baatu yusru bi mu baamu ñaari yoon te taaruwu ko day jàpp ne yaar yu bokkut la alxusru biñ taara nag la muy baamu baamu dañ koy jàppe ne benn baa rek fa inna mahal xusri yusran inna mahal xusri yusran yonent bi dane bëgg leen ndax gennuk jafe mënta ëpp doole yaari yomb xam ne kon yusru ja nga xam ne moom taarawut ñaar yu bokkut lañ ko jàppee alxusru ba taara nag la muy baam baamu ñu jàppe ko benn takk-takk bi fii nag mooy bu tuddee ab xaaj ci pase waaye jëmmi baatu pase ba ci boppam baamu na ko ñaari yoon boole ko ab xaaj ni ci kaar mbaa ceer mbaa genn wàll dañu wàññi bu ca nekk boole ko lam ko booleel mu di ab xaaj ñu mottali ko loolu nag mooy tax mu daal di limu bu ne ko fase naa la léppi pase ba mu des genn wàll ga ba tey ñaar rek lay doon ndax gën ngaa bari pase mooy ñett dagam moom mi pase gor la kon ñett buñ ko xaajee ñaari xaaj day doon benn ak genn wàll benn ak genn wàll nag yoon day mottali genn wàll ga mu daal doon ñaar looloo koy def ñaari pase koo xam ne xam na lim liñ ko baaxoo defee bu ne ko tallaqtu ki waahidatan fis na tey ni fase naa la benn boo ko defee ba muy ñaari yoon benn boo ko defee ba muy ñaari yoon ñaar rek lay doon kon bu dee koo xam ne xam na lim wax loolu ñu jàpp ne ñaari pase lay doon waaye nag bu dee koo xam ne xamut lim day jàpp ne daal jubloo boole benn ñaar mu daal nekk ñett daal jublu waahidatan maxas na tey ni bu dee ko xamut moom loolu lañ koy jàppee bu ne ko fase naa lépp pase ba mu des genn wàllu menn pase tey néewu ko fase naa lépp pase li may genn wàll ga dane ko fase naa la lépp pase ba mu des genn wàllu menn pase dañuy jàpp ne kon fase na ko ñaar ak genn wàll ñu mot li genn wàll googe muy ñett su jëfandikoo kullama te liñ ci xam ci langue arab moom mooy yoon bu ne mooy day baamu bépp yoon boo xam ne rek nangam kon nangam bu jëlee nag kullama boole koog loo xam ne lañ ci xam mooy luy dem ak dikk la ba am benn yoon day am ak amaat mel ne gis baax jigéen gis baax moom bu ca tolloo am ak amaat rek lañ ci xam kon bu ne ko kullama xibduti fa anti taaliq mu ne soxnaam saa yoo gisee baax rek fase nga ba noppi nag wa tallaq te mu fase ko waahidatun benn bu ne ko saa yoo gisee baax rek fase nga tekki ne ko nag fase naa la benn rek du tax ñu jàppe ko benn ñett lañ koy jàppee wala bu ne ko woon saa yu ma la fase rek fase nga tekki ne ko fase naa la nag benn ba tey ñett lañ koy jàppee nga takk foofu ne kullama xibduti fa anti taaliq ak kullama tallaqtuki fa anti taaliq ak mata tallaqtuki fa anti taaliq ak soo jëloon kullama mbaa mata boole ko waqa xale ci talaaq yi lu ci mën doon rek bu ko waxee ba noppi ne ko nag fase naa la benn du tee ñett lañ koy jàppee bu ne ko woon saa yu ma la fasee rek fekkoon na nga fase ñett mbaa fekkoon na nga fase ñaar xablahoo ji rek moo ci yees su ne ko saa yu ma la fasee rek fekk na nga fase ba noppi ci njëkk loola ñaar mbaa ñett ba noppi nag daal di ko ne fase naa la day jàpp ne loolu ñett la bàyyi xablahoo jooju bañ koo faale li weesu mooy di fase si soxna di ca tudd ay xaaj mel ne kaaru paseeg genn wàll ak nangam ak nangam loolu ku koy def bares na ko yar ba mu bàyyi ko bañ koo defatee am na ñu ne song rek def ko sax lu araam la ba tey fase lu bokk ci soxna sa niki ab loxoom mbaa boppam mbaa tànkam mbaa biiram bàyyi la ca des faaw yoon mottali ko ni nga ko yoosu woon ci gannaaw waaye moom it ku ko def ñu war koo yar ndax mu bàyyi ko mu ne nag bu nee soxnaam fase naa nangam ci yow te gis na loolee lu ñuy fonk la ci jigéen ja mel ne kawar ga wala lor ya nga xam ne yàbbeegu ko bu ko waxee ñu jàppe ko passé waaye nag loo xam ne bokk na ci jigéen ja waaye dañ koy seex lu mel ne lu ko tifli ba mu génn ci bitti wala rongooñ bu dee ko fase naa sa rongooñ mbaa fase naa saw ñandax it lu tax ñu jàppee ko passé lépp lu ñuy tagg ci jigéen ji rek mel ne kawaram mbaa waxiinam mbaa lor yi nga xam ne yàb dëgg ko moom bu ne ko loolu laa fase ñu jàpp ne fase na waaye nag bu tuddee loo xam ne amaluñ ko solo mbaa dañuy seexlu li mu tudd ay tifliit lu mu yàbbi ba noppi mbaa rongoñ mbaa sëqat bu nekkoon fase naa sëq sëqat mbaa sa rongoñ kenn du ko jàppee fase al riixu lor ak al busaax aw tifliit lii di taqale mooy li fekk lor wa génnut ma nga ca gémmiñ nga ñu tudde ko ar riixu bu xësee génn nag ca gémmiñ nga tudde ko al busaaxu jigéen nag lor ya mu yàbbiwut daañu koy bànneexoo waaye nag bu xësee yàbbi moom mu nekk aw tifliit moom dañ koy daal di tàmbalee seexlu li ñuy wax seetee mooy génne ca la nga waxoon dara daañu ko nangu fii ci fase bu doon ci naxwu dañ koy defee illa wala ya ci def ni ki siwaat xëyroog yeneen mu ne nag bu ci ñetti saat ci dajee bu nee soxnaam fase naa la tudd ab lim teg ca lu may nàngam maanaam lim bu manqué nàngam ñu nangu la mu wax ni ki mu ne ko fase naa la ñett yu manqué ñaar bu ca saat ci dajee dañuy jàpp ne benn la ko fase ndax ñett moom boo ci génnee ñaar benn cay def bi jëkk ci sart yi mooy ñu sësaloo ba mu ko nee fase naa la ñett mu teg ca fa saasa yu manqué ñaar sartu ñaareel ba seete googee muy lu mu jublu ko jublu ci xolam bu rekk da ko rek mu wax ko na nekk lu mu jublu muy wax xasada te it la mu génne ca la njëkk na wax bañ koo jeexal tàkk-tàkk bu nekk woon fase naa la ñett yu manqué ñett du baax ndax ñett moom bu génnee ci ñett da koy jeexal tàkk du ca bàyyi dara bu ne woon soxnaam fase naa la ñett yu manqué ñett tegaat ca yu manqué benn day jàpp ne andi na ñaari seete yoo xam ne bu jëkk bi baaxut ndax ñett bu ci ñett génnee moom da koy jeexal tàkk du baax waaye lam ca tegaat nag ne yu manqué benn dañuy jàpp ne li mujj wax muy benn boobu moom mën naa génn ci ñett bàyyi ci ñaar su boobaa nag kon day jàpp ne fase na ñaari pase kon bu ne ko talaqtuki talaatan illa talaatan illa waahidatan day jàpp ne fase na ñaari pase daa andi ñaari settee bu jëkk bi baaxut ndax daa jeexal tàkk-tàkk yi jàpp nag bu mujj wax rek muy illa waahidatan ji benn bu génnee ci ñett ñaara cee def kon ñaar la fase moom mi wax loolu awil battata wala mu ne ko pase naa la pase mu dog teg ca illes na tey ni ndare ñaar illa waahidatan ndare benn kon ba tey is na taal ñaari fasalee doon bu ne ko talaqtuki al battata illes na tey ni illa waahidatan dañuy jàpp ne bi mu ne ko fase naa la pase mu dog dog moom ñett koy def ñett nag boo ci tegee illes na tey ni mu ñett yu manqué ñaar benn cee def waaye daa jàllaat ne illa waahidatan day jàpp ne illa waahidatan dañ koy génnewaat ci illis na tey ni ji ko jiitu ñaar ñi mu génnewoon ci ñett ña dañ ciy génnewaat benn ndax ni mu waxee ñett ña bu ci ñaar génnee dana des benn ñaari bu ci benn génnee dana des benn moo tax ñu jàpp ne kon fase na ñaari pase kon bu ne ko talaqtuki albattata teg ca illis na tey ni illa waahidatan day jàpp ne kon fase na ñaari pase fii nga toll nag ci mbirum seetee la ne gën ngaa bari pase moom mënta weesu ñett waaye nag moom mooy wax bu waxee lim bu ëpp ñett it door a seetee la wax lépp la ñuy boole génne ca lam ca seetee niki bu ne ko woon fase naa la ñeenti pase yu manqué ñaar ñu jàpp ne ñaar bu génnee ci ñeent kon ñaar cee des bu ne ko woon fase naa la juróomi pase yu manqué ñett juróom bu ci ñett génnee ñaar cee des nga xam ne foofu wañuwaale gi ñu wañuwaale la ñu yokk ca lim ba mu weesu ñett dana ko amal njëriñ am na nag ñu wax ne moom bu ñu faale lam ëpp ñett ñett rek la ñuy seet génne ca lam ca génne bañ a faal la ca topp ni ki bu dee ñoom bu nekkoon fase naa la ñeenti pase yu manqué ñaar day jàpp ne ñetti yoon wax rek la ñuy génne ñaar ko defee kon benn pase koy defee bu nekkoon nag fase naa la juróomi pase yu manqué ñett day jàpp ne juróom yi mu waxoon ñettee rek la ñuy seet moom la yoon jàpp génn ci ñett te kon day jeex tàkk seetee googu du baax kon ñetti fase moo koy war waaye nag jàppal wax dëkk ja moom lañ sukkandikoo ci ni borom téere bi waxee mu ne bu ajee pasem soxnaam ci loo xam ne lii ñëw la waaye ci na waxee moom ci xel jàpp nañ ne mënta am mel ni ak jërëmu jëmm ju yàlla sàkk mu ne léegi moom lañ ca xam mooy faaw rek na mu toll ci réyaay dana jël loola ci fa mu nekk ci place ba mu nekk bu dee ku rëy dana jël lu yaatu bu dee jëmm ji tuuti jël rek lu tolloog moom bu ne soxnaam nag taabal jee bu subaa dana fi nekk te du jël nag benn place ci kaw suuf taabal jee daal bu subaa nga xool mu jël benn place ci kaw suuf fase nga xel day jàpp ne loolu mu wax mënta nekk lu yàlla sàkk mu ne muy jëm jële léegi moom ni ñu ko waxee rek mënta ñàkk jël lu tolloog la jëmam toll ca fa mu nekk bu nekkoon ak taabal jee bu subaa bu jëlee ci ab yaatuwaay lu tolloog jëmmam fase nga dañuy teewal fase ma fa saasee saas duñu xaar ba ëllëg mbaa dara ba tey dañuy jàpp ne boole ñaari safaan lu jomb la mel ne dund ak dee mbaa am ak ñàkk lu ne noonu mënta tase mukk mukk al jamhu bay nob bi bay ni mustahil la ñuy wax bu ne ko nag su ëllëgee te booliwuma ñaari safaan nga teg ci sa bët fase nga dañuy wax rek ni soxnaam fase na ba noppi duñu xaar ëllëg mbaa dara ba tey bu ne ko buñ àggee ci dat sàngam fase naa la ñu seet ne dat ba mu wax ci aada moom mën nañ caa àgg ni ki mu ne ko buñ fi amaatee at rek fase nga dañ gis ne ñoom ñaar fi seen dund toll dundaat ci li toll ni am at lu mën a am am la ci la ñu xam ci aada dañuy teewal fase ma fa saase saasa duñu bàyyi dañ teg ca at ñu door naa ko sa soxna fase na bu waxan nag dat boo xam ne ci aada moom lañ xam seen dund mook soxna si mënu ca àgg mu ne ko buñ ca àggee fase nga mel mu ne ko buñ fi amaatee téeméeri at fase nga téeméeri at moom dëgg la sax mënees naa gudd fan lool ba àgg ci waaye léegam ñu ngi toll ci di jëkkër ak jabar lañ am ci at tegaat ci téeméer moom miinuñu ko ci aada kon soxnaam du fase waaye bu ne ko woon it bis ba nga xam ne ca laay faatu buñ ci àggee fase nga mbaa bis ba nga xam ne ca laay faatu buñ demee ba suñ digganteeg moom des wenn waxtu rek fase nga dañuy teewal fase ma fa saasay saasa ndax dañuy xam ne lu yàgg-yàgg moom bisu faatoom dana dikk duñu xaar nag ba bisu faatu ga dañuy teewal rek fase mi léegi léegi wala mu ne ko du taw bu tawee rek fase nga te néew ko li fekk nangam fan du fi taw mbaa barab sàngam du fi taw daa jékki-jékki ne ko rek taw moom du am bu taw amee rek fase nga dañuy jàpp ne dañuy jàpp ne asamaan si maasale bañ a taw fenn fenn fenn ci àdduna mënta am faaw rek du ñàkk fu mu taw kon ndegam dane ko bu tawee rek fase nga ñu jàpp ne taw am na ba noppi mbaa boog wóor nañ ne faaw mu am ci ab barab ci àdduna mënta ñàkk daal di teewal fase ak soxnaam fa saasay saasa wala mu ne ko su ma loolu asamaan ak saa loxo rek fase nga day jàpp ne soxnaam fase na ba noppi ndax ci aada moom xamuñu nit di làmb asamaan ak loxoom wala mu fekk loo xam ni jàpp nañ ni moom faaw rek mu am mënta ñàkk ni ki mu ne ko saa yoo lekkee rek fase nga waaye saa yoo naanee rek fase nga mbaa boo jógee taxaw rek fase nga wala boo tëddee rek fase nga wala mu ne man nuñ saa bopp su ma jógee rek fase nga wala su ma tëddee rek fase nga dañuy jàpp doomi aadama moom lekk mbaa naan mbaa jóg taxaw mbaa tëdd mu yàgg yàgg faaw faaw mu def ko mënta ñàkk loolu nag mooy mu wax ko noonu rek dañ koo takk ci yenn jamono waaye bu ne ko woon li fee ngoon boo fi jógee taxaw mbaa li fee ñu noddu tisbaar boo fi jógee taxaw fase nga mbaa mu ne li fee ñetti waxtu jot boo fi lekkee fase nga mbaa boo fi naanee fase nga duñ ko wax ne ko sa soxna fase na dañuy bàyyi ba xam loolee mu wax dana deñ am du deñ la mu wax bu deñee soxnaam fase bu deñut soxnaam du fase bu nekkoon li fee lu fi am 60 minutes boo fi jógee taxaw rek fase nga duñu teewal fase na dañuy bàyyi rek buñ fa amee 60 minutes te soxna si jóg fi taxaw fase mi dal na bu fekkee nag 60 minutes yi mat na te soxna sa jógu fi taxaw fase amut bu fekkee lu yoon waral nga xam ne ab jullit sañu koo bañ daa wax soxnaam ne ko su ma ko defee rek fase nga mel ni mu ne ko su ma jullee benn jul juróom rek fase nga baa mu ne ko su ma wooree ramadan rek fase nga dëgg la julli mën naa war nit te du ko def woor ramadan mën naa war nit te du ko def waaye bu nee rek moom soxnaam su ma jullee jullik farata rek fase nga mbaa su ma wooree weeru koor fase nga dañuy teewal fase ma fa saasa moo xam nag julli na wala moo xam woor na weeru koor wa wala julliwut mbaa wóorut bu ajee passé soxnaam ci loo xam ne moo ëpp am mel ne soxnaam mu ngi toll rek ci di gis baax mbaa gone la waaye xam nañ ne moom bu dundee dana gis baax bu ne ko saa yoo gisee baax rek fase nga bu ñu bàyyi ba mu gis baax dañuy teewal passé ma fa saasa saasa ko waxoon nag koo xam ne daa màggat a màggat ba du gisati mukk moom baax kon passé ma du dal passé ma amut waaye bu soxnaam doonoon gone goo xam ne xam nañ ne dana fi amaat fukki at ci misaal door a gis baax itam dañ ko yemaleeg mu toll woon ci di ko gis rek daal di teewal passé ma fa saasa bu ajee passé soxnaam ci loo xam ne mën nu koo xam léegi léegi bu nu bu ñu di ko woon nag daanu ko mën a xam waaye jamono ji muy waxe moom mën nu caa xam lu wóor mel ni soxnaam ëmb ëmb goo xam ne gu fës la mu ne ko doom ju góor nga ëmb bu ëmbee jigéen rek fase nga mbaa mu ne ko doom bu jigéen nga ëmb bu ëmbee góor rek fase nga buñ bàyyee ba mu am doom daañu xam doom ja góor la mbaa jigéen la waaye duñu xaar loola dañuy teewal fase ma fa saasay saasa li ñuy wax ab dégéej mu ne ko dégéej bii amul ñaari xol mel mu ne ko doom bi amul ñaari saal bu amee ñaari saal rek fase nga bu ñu xaroon doom ba daal di xam ba xam ñaari saal moo ci nekk wala ñaari saal nekku ca waaye bu ñu xaar loolu dañuy teewal fase ma fa saasa baa mu ne ko woon xaal bii daa weex bu weexul rek fase nga dañuy teewal fase ma fa saasa du ñu bàyyi di xar xaal boo xam xaal bi dafa weex am weexut bu ne woon soxnaam boodu jóob mii ci waa àjjana la bokk bu ci bokkul rek fase nga dañuy jàpp ne soxnaam fase na ba noppi ndax lu mën noo xam ba xam kooku bokk na ci waa àjjana wala bokk ci bu waxal nag ne kenn ci yonante bi waxoon ne ñuy bokk ci waa àjjana mu ne bu ci kooku bokkul saa soxna fase na kon soxnaam du fase ndax ne bu yonante bi moo seere àjjana yi kooku moom lu wóor la bu fekkoon ne jigéen di amul menn màndargam ëmb mu ñoo xam ëmb naam amut mu ne ko nag yow mi ëmb nga bu amul rek fase nga baa mu ne ko yow mi ëmboo bu ëmbee rek fase nga lu mu ci mën doon dañu daal teewal passé ma fa saasay saasa loolu jekki di teeylu ba xam lay wax am naam amut bu fekkee nag soxnaam soosee cig laab la nekk goo xam ne jotuwu caag moom benn yoon dañuy jàpp ne kon ëmbut kon bu ne ko yow mi ëmboo bu ëmbee rek fase nga soxna sa du fase ndax dañuy jàpp ndax wóor na ko ne cig laab la nekkoon te jotuwu ci moom benn benn yoon dañuy jàpp ne kon rek ëmbut bu ne ko nag boo ëmbee fase nga yow mi ëmboo ñu jàpp ne wax na dëgg soxnaam sa du fase safaan ba nag mooy noonee mu mel nga xam ne ci laab la nekk jotewu caag moom mu ne ko yow mi ëmb nga soo ëmbul rek fase nga da nga ëmb kay dañuy teewal fase ma fa saase saasa ndax ndegam ci laab la nekk jotewu caag moom ba noppi ne ko ëmb nga dañuy jàpp ne ëmbut bu ajee pasem soxnaam ci loo xam ne lu yàgg-yàgg nun duñ ko mën a xam li nga weesu woon daa doonoon loo xam ne bu nu teylu woon dana dem ba leer nu xam ko waaye li muy wax nii day doon loo xam ne moom lu yàgg-yàgg duñ ko mën a xam mel ni mu ne soxnaam fase nga ndegam pase gi neex na yàlla mën noo xam bax yàlla lii neex na ko am lii neexu ko wala mu ne ko pase nga su fekkee sag pase neex na malaaka yi mbaa neex na jinne yi dañuy jàpp ne la neex yàlla ak la neex malaaka ak la neex jinne moom nun lu yàgg yàgg duñ ko mën a xam dañuy teewal rek fase ma fi saasee saasa daañu leeral nag bu waxee nit ne nit sàngam moom bu ko neexee fase nga bu ko neexul fase woo daañu ko wax ci kanam wala mu aj pasim soxnaam ci loo xam ne mën naa am mën naa bañ a am mu takk ko nag ci biir boo xam ne dane faaw rek loolu dana am bu amul rek fase nga mel ni mu ne ko balaa weer wee dee faaw dana taw bu tawul rek fase nga wala tey jii balaa jant bee so faaw dana taw bu tawul rek fase nga duñu bàyyi li sa weer wi dee boo xam dana tawam du taw wala mbaa li sa jant bi so dana tawam du taw dañuy teewal fase ma fa saasa lee mu waxoon mooy li sa weer wi dee dana fi taw mu ne nag bu ne woon li feeg weer wi dee moom du fi taw nga xam dafa dàq léegul dana am dane taw du fi am li feeg weer wi dee mbaa li fa jant bi so du fi taw am ñu ne kon daañu ko muñal bu dee weer waa ba weer wa dee su fekkee ne taw na fi rek soxnaam fase bu dee li fa jant bi so bu ne woon du fi taw bu fi tawee rek soxnaam fase la mu wax nag bu dañut kon soxnaam du fase daa am ñu yemale nag ba mu ne faaw dana taw li feeg dat sàngam ak ba mu ne li feeg dat sàngam du fi taw maanaam ba mu dàqee ak ba mu saxlee daa am yemal yaar yëpp am ñu ko teqalee nii mu ko teqalee moo tax mu boole ci nag xalul arjax di ci ëpp daa mel ne ne nangam du am la ñuy gën a dëgëral ci mu dogu ci ne faaw nangam dana am ne woon li feeg yeer yi dee du fi taw bu fi tawee sama soxna fase na bu ñu teewal pasim soxnaam dañuy bàyyi ba weer wi dee bu fi tawee nag soxnaam fase bu fi tawut soxnaam fasewut bu ajee pasim ci loo xam ne lislaam da koo araamal mu ne nag danaa ko def su ma ko defut sama soxna fase na dañuy teewal pase ma fa saase saasa duñ bàyyi ba mu def lu araam loolee mel ne mu ne faawu ma njaaloo ma njaaloo wut sama soxna fase na mbaa mu ne danaa rey nit su ma rey nit sama soxna fase na dañuy teewal pase ma fa saasa lu may nag daa def lu araam loolee te àttekat ba jotagut a dóor pase ma ci kawam mbaa fekkuñ yóbbu ko ci kilifa diine ga ba mu wax ko ne ko sa soxna fase na xam ne kon bu dee njaaloo ga njaaloo na mbaa naan na sàngara te demaguñ ci àttekat ba ba mu ne ko sa soxna fase na mbaa demaguñ ci kilifa diine ko ba mu ko ne sa soxna fase na kon soxna sa fasewut ndax lam waatoon tebbikuwut daa am yetti masala yoo xam ne bu ñu nee soxnaam fase na itam faaw àttekat ba mooy wax ne parce mi dal na mu door a sotti wala kilifa diine ga lu bokkut ak ñetti masala yooyu nag moom bu ne rek soxnaam fase na dal nañ fase fa saasa mii mu toll nag daa bokk ci ñett yooyu